asalaamaaleykum asalaam wa rahmatullah xam nga nit dafa am lool da ko war a nangu bu sa bopp bi metti neel sa bopp bee metti bu tànk doxul neel tànk yee docteur bi lépp loo xam ne war xam ci yow yaa ko war a wax cin boo ko xoromee ka nga xam ne moo ko bàyyee mu di ko agar xamal ko ne ko xorom nga ko bañ mu xoromaat ko damay li xew senegal ten bañ koo nangu senegal dafa nekk ci mbugal dafa nekk ci mbugal ca jamono yontu yàlla Lóot ca mbiri góor jigéen ya ak jooju moo dal Sénégal lislaam gi jaarut yoon kenn ku ne xam ne ne bokkaale gi lu wér la lu wér a wér dañuy bokkali ci réew ma kenn ku ne xam ne ne riba daanaka ni deret di circuler ci nit riba noonu lay circuler ci dereti réew mi dama ne kan nangu ne dañoo ne ci mbugal kan nangu ne dañoo ci mbugal fukki lii rek benn deendoo dama ne fukki lii rek benn deewo deewandoo ab sarax la boo xam ne bu satanique lu bon chiffre onze boobu rek onze boobu rek dafa lu mu tekki bu fekkee ndigam ngeen dëgg dëgg dëgg ci la codification maçonnique un plus un égale deux awaay ah kan kan kan jóg ci bopp réew mi ay fétiche moo fi nekk ay xërëm dama ne kilifay diine yi ak politiciens ñoo bokk ay sëriñ ñoo bokk ñu leen di xërëmal kenn ku ne bank bi nga toog doon kilifa diine ñi ba ñi ci war a toog noppaluwuñu guddeeg ba ci jabartu ci yow ba nga jóge fi boole yow mi nga xam ne yaa fi nekk yàlla soo gëmatoo ko ndax danga koy bokkaale réew mi dama ne buñ amee dama ne bu yemee ci di jàmm la te du ci yem parce que nangoo gun ko moo tax dama ne il faut ñu def tuub national ñëpp taxaw ñu dajaloowaat donte di wuti ay imaam yu beesit ñu tuuba daal réew mi ñun yëpp àndandoo duggaat ci lislaam génn nañ ci lislaam bu yàgg gaam bi ñu tëgg gaamu maçonnique la gaamu laïcité la quatre-vingt-quinze pour cent des musulmans ngeen wax tubaab bi ne la majorité fait la différence dans une démocratie tubaab bi sax nee na yow ci sa bopp yaa moom majorité yaa war a tànn ñu quatre-vingt-quinze pour cent des musulmans doon ay salopaar yoo xam ne kenn xamul lu ñu nuru chrétiens yi doon cinq pour cent am nañ fukki feet ak juróom ci année bi yow ngeen ab jullit nga ajuma da ngay liggéeyi chrétien bi dimanche day dem mèche du liggéey yow bu aju maa nga liggéey te tabaski ak korite képp nga am ci ak fet kon lislaam ji bokkut kan waxante dëgg nit nag bu coqtaan boppam du noppee lii leer na ñépp te danaa la xamal leen ba Burkina Faso sëriñ si dañ fay dem di wuti jabar ba Inde ba Inde kilifi di na fi dem di fi yóbbante ñu wuti leen ay ay ay xërëm loolu ñëpp a ko xam waaw tëmbal aw nag ci géej gi tëmbal gone ko gën dañuy jàpp doomi jàmbur yi leen tëmbal ci géej gi ak lépp ci réew moo xam ne ne quatre-vingt-quinze pour cent de musulman dama ne yàlla defaguñ dara benn benn karawaas képp a dal ñu yor sunu làmmiñ di mbapp mbappi alxuraan am na junni at ci réew mi junni at am na ko fi bërki démb képp lañ door a xam ne ak ngóor jigéen araam na alxuraan suñu borom ne lépp a ngi ci defal naa li ci lépp lépp ngi ci am lu la réer mooy ci alxuraan fekk ko fa ñu yor junni at junni at alxuraan yor ko ko tey ñu bokk ci réew yi gën a torox gën a pauvre ëppi bor te lu mu yor tubaab bi nangu ko wilaay noo bon li fi nekk nañ ko wax mafia bi fi nekk nañ ko wax xeeti tarix yi ni mu tëddee lépp style maçonnique la franc-maçon yi ko dessiné franc-maçon yi bi ñu dugg ci réew mi xam nañ ko liñ fi duggee xam nañ ko pour pourquoi ñu du mënu boole ñu ak Jules Ferry Jules Ferry transformation bopp yi ñu doon ay dof làkk wi yàlla jox sax nanguñ koo làkk tubaab lañuy làkk lay noo bon waaw yor alal mu fees del ci réew mi ñépp yaakaar a tedd tubaab bi dikk di jël lépp di yóbbu masalan nga bay sa téeméeri kilo téeméeri barigoy gerte tubaab bi dikk ne la léegi dama jël quatre-vingt-dix barigo yi yow ma jox la dix te dix yooyu mu lay jox ca ngay sàkk aw jiwu yow lay noo bon li fi nekk nañ ko wax waaw muslim am indépendance kilifa diine yi fokk ñu di leen tudd comme na xari booy nga génn ci groupe bi dañ leen di tudd waaw du kenn ku dul ñoom moto bi dëggool dikkee Sénégal amut ak affaire Senghor Senghor dafa dem yoonam Mamadou Dia dem yoonam Lamine Gueye dem yoon bépp dem vacances bi ñëwee dakaar ana ñu ko recevoir wala jooju ko recevoir ministre l'intérieur ak sëriñ si sëriñ si dafa xeex maa koy ñaanal ku ne maa koy ñaanal indi maa koy ñaanal yaa ñaanal keroog maa ñaanal dëggal lañ fa wax xuree dégg na ko vidéo yëpp dañuy génn dama ne Alaaji Abdoulaye Cissé dafa wax ba dafa wax ba tëdd lu waxut amut wax na bay jooy waaye ñii fi nekk ñii nga xam ne ñoo nekk Sénégal actuellement du du juróomi dërëm intéressé wu leen lu dul soxna su rafet intéressé wu leen te xool leen li ma leen wax dama ne dañoo ci yoon wi sëñ tubaa bëggeewu ko nii sëñ tubaa tey bu dil si waatoon fii dana bari ñum tëgg mbéj li fi nekk nañ koo wax waaw bu kàdd jubee nag ñu ne daa contre sëñ beeg daa contre que ñun contre benn sëriñ nii ñuy doxale lañ bëggut nii ñuy doxale moo jaar yoon waaw jabar ju la neex takk ku la neex fose waaw ñu ci bëree bari ci sant yu rëy yi bokkuñu ndey ak baay amu ci waaw da jur benn doom ñaar ñu wàcc la indi keneen wala ñu téye la parce que mbokk nga li fi nekk nañ ko wax yàlla dañoo mbugal te mbugal mi des na de xool leen rek ci màggalu Tuubaa gi paase ak ak ak ak gàmmo mbedd yëpp ndox la seen Sénégal xola mbedd Tuubaa yëpp am ndox la. mbedd yëpp am ndox la amu foo jaara comme ndox te kër goo dugg boo ñaani pot ndox boo naan ñu ndox amul loolu lépp ay référence la yoo xam ne war cee jàng mais jànguñu ci dara dara jànguñu ko ci jëli nag di rey di tëmbal di rendi aw bëy di sangoo ah jël ginaar ah butti ko te doo ko rey jël doomi jàmbur sàcc ko ah takk ba mu dëgër sol ci saako tëmbal ci géej gi nit nit nga jël tëmbal ci géej gi ah jëlub xaj dagg ñaari noppee dagg tànkub càmmoñ bu ndeyjoor ba boole ah dëddalee dem ci pañab gura jël doom ba ci digg ba nga jël ko xar ko jël ay pop def ci xaŋaal wu ne jël alxuraan dëpp ko dugal ci diggante bi takk ba mu dëgër yeew def ci ab pot nga suul dë dëddale dëddale alxuraan nga boole ko ko puup ay puup ñu boole ko ko alquran ñoo bon dama ne lu ñu yàlla def rek defaguñ dara lu yàlla def defaguñ dara tubaab baa ngi nii dama ne lu ñor ci réew mi mu jël ko yóbbu am natt mënta paase loolu am natt mënta paase géej gi ni ko yàlla defe ay jën yàlla nu lekk leen jën yi tubaab bi dikk ay kàddu doong ay kàddoom ket gaare bato ki bi lépp yóbbu ngeen defeen yéen ngi ci jàmm ruux nañ siiru waaw jasneer yi ngeen di sol ak lislaam jotuñ dara waaw ba tax na billaahi buñ jógut daanu torox ustaas ni ci télévision bi dañuy fen luñ yóbbu seen kër ab dépense lañ bëgg sëriñ si nag du sëriñ sépp daanaka quatre vingt ba quatre pour cent sëriñ si amuñu lu lekk dañuy yelwaan sëriñ su baree bari gedd nañ daara ji ña nga ndakaaru di jabar wala ñëw Amérique di jabar wala ña nga France di jabar dama ne bàyyi nañ daara ji ñu baree baree bari ay muur mu doon def seen bopp léegi tas daara ji doon na ci seen bàyyi gouvernement bi jël alal ji ana lu koy doyee kenn dong la koy jox boo nangoo jàng tubaab bokk nga boo nangoo jàng nasaraan ki lay jàngal moo koy fay saal bi ngay dugg moo koy fay. li ngay lekk daanaka moo koy fay di la toppatoo bu baax parce que nasaraan ngay jàng suñ doom yi bëgg a jàng alxuraan ñu ngeen ko fi jànge dañuy yalwaan yalwaan door a mën a sol tubo yi wala ñu sarax leen ñu sol xale yi tànki na lañuy def ci mbedd mi ci mbugal lañ nekk mbugal te di daa leen xamal leen nun ñëpp nag sans exception bu moyul daañu dee nun ñëpp dem sawara dolli ci billaahi wallahi dama nun ñëpp sans exception buñ teggiwul seen tànk daanu dee ñun ñëpp dem sawara amul lenn luy dëgg yàlla mën nga koo saaga ci biir Sénégal duñ la tudd waaye koo tuddub sëriñ mutu yet dama ne bu ndax suñ bopp gaal gi ñu dugg demut fenn demul fenn te politiciens yi ak sëriñ si ñoo ànd de dama ne ñoo bokk ay sëriñ dama ne ñu ne Guinée Bissau di fétiche ak ñene Inde di fétiche ak suñ sëriñ si ak kilifa yi diine yi ak ak yi benn lañ waaw sacrifice onze bébé onze bébé yoo xam ne nàmpaguñu fukki bébé ak benn nàmpaguñu ñëpp demandoo ñu bëgg a lay naan gaz baak nangam ak meeru Tiwaan bu man a fen bii nga xam ne drogue dii la ma xam ko depuis Paris le maire de Tiwaan se porte malheur c'est un voyou un bandit waaw koo xam ne xeeti drogue yi bu ko ci umpalee amut dafa drogo ba kanam gi toj ngir Tiwaawoon jox ko ah loolu rek ma woon ne bu bon la li fi nekk nañ koy wax nit ñi sonn nañ toq nañ réew mi ñoo ko moom bàyyi kenn moomu kudul nun ñëpp ku fi defe galaawaari jóg leen ngeen wax ko xale yi dañoo toqi sonn xale yi dañoo tàyyi xale yi xamul suñ jëm xale yi damañ ba xàmmituñ géej gi ak jéeri ji dañuy tàbb ci géej gi di dee ah boo demee South America li ko tàmbali Argentine Brésil Costa Rica Panama ba ba ngay dugg Mexico doomi Sénégal yi ñu ngi dee ci mbedd mi dee laa la wax dañuy dox ba dee tani tani ñoom lañuy lekk tani bukki yi ci yaramu Sénégal yi li ñuy dund waaw ñuy passeport diplôme di ko jox sëriñ si politiciens yi mel nañu dañoo bokkul ci réewum ci lañu bokk waaye yàlla bilaay yàlla bu meree bay duma dama ne ku ko deful dara sax dana la duma liir yee gis nga liir yi door a judd jotu ñoo def dara gis ne yàlla def fàttandoo fukki liir ak benn la yàlla def kon dun ponkal yeeg màggat ñeeg kilifa yi sikkim yu gudd yi bu nu yàlla rey dem waxuma la xoola daanu dee sax dem sawara boo moyul man ma lii man Ousmane Dramé ma ko waxtu ma ci dellu ginnaaw lii du dëgg du yoon toroxal gone yàlla woon ne leen exemple ne gis nga liir yi dama leen di lakk yéen nag fi may jaar yéen xam naa ko dëkk di bokkaale rek télévision boo xam ne sa maam sa baay sa maam bi muy def nangam sama maam maam maam ah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ci ay mbiram ni daan toogee ki soxnaam ni daan waxtaanee ak waa këram koo fi ni sa sëriñ nii lay toogee ak soxnaam am ba problème maanaam seen sëriñ ñoo gën yonent bi seen sëriñ ñoo gën yàlla looloo nekk Sénégal te muy dëgg dañuy fen looloo fa nekk kenn ku ne yaa ngi woote ah kan waxante dëgg muuru Kara lu man ci yàlla ak ba priorité la ci yàlla te du moom dong ah. ñoom ñëpp am na ku fi dem ba ne ba ma jëkkee gis yàlla ba ma jëkkee gis yàlla la wax Sénégal yi du ko déglu dangay toog mag muy fen toog ci télévision bi ah naan soxna Xadija toggal na sama sëriñ laaxu bisaab ñoo bon bilaay duñ tekki duñ rëcc duñ dem parce que baaxunu amuñu ay worma amuñu ay teggin xamuñu nu ñuy jaamoo yàlla waaye yàlla ni ñu mel képp lañ faye moo tax karawaas yi dal suba ak ngoon Macky Sall di génne ab geenam di saw ci sunu kaw xolli lu toll ne jàkka jumaa ñu di ko ubbi ay millions de personnes taxawoo ñuy combine ci biir franc-maçon installé fa ko ba ma ko jëkkee wax maak àqi na toon dañ ma doon menacé tey gis ngeen li xew ah mbàkk yi fay sàcc sàcc bu mag ñépp xam ne voleur la ah suufu slib yëpp mu sàcc ko ànd ko Ablaye Wade jël ci une partie neexle ko ñu tabax ci Masaalikal Jinaan ñu ñu jëkk ci biir toog di fen di juboo juboolu di fóonante ak dente sama xarit damaa joomoon ah te dara lu ci dëkk war nit ñi war yàlla waaye bu ngeen defee ne yàlla ab torchon la gars yi da ngeen ko réccu da ngeen waaye fii képp ku nekk Sénégal te tiitoo doo nit dama ni képp ku nekk Sénégal te su fit demut xamoo yàlla te lii ma ndax mooy li am waaw suñ kàddu yi nag du man du mën a neex du mas a neexit parce que dañoo jubut dëng senegal koo dénk mu jël ko koo dénk rek dana ko sàcc ku la fa amel bor du ko fay ku la jékku jëw la senegal dafa dem ba kër yi kër yi ki nga bokkal ndey wala ngeen bokk bàyyi du la bëgg a gis dalay fenal ak di jabartu Sénégal ngay gis am jabar yor ko ay càmmiñam gënal la ko yow te bu doon nga dee wala seen càmm yow yaay dee mu doon la ak i càmmiñam Sénégal ngay gis di dundal dundal nit di ko dundal mu bañ la Sénégal ngis ab sëriñ ñëw ci moom di sàkku ci moom yàlla moom mu jabar la jabar la ba loom indi ko Sénégal nga gis ñu dénk la kees nooma ngay fonctionner nga di ko sàcc di bind ay ay ay bon yoo dara baaxu ci lépp doon riba nga fas yéene ko dunde yar ci ak njaboot Sénégal a bon Sénégal da fay développe benn xeet woo xam ne xeet wu bon la xeet woowu ñoo yàq réew mi nag maana comme ay xari beli beli comme ay xari raas noonu la ñuy développé foofa léegi dañuy tëbu tëbu ndax da gis ab sëriñ doomi sëriñ lay sëyal ab député. mi wër doomu ministre bu mu sëyal doomi député doomi pour ab procureur lay sëyal yooyu yëpp ñoo ko defee noonu pour créer benn déchet boo xam ne ñooñu ñooy mujj ci Sénégal maanaam ay xarit bëri bëri ay warale boo leen du xool sax normal ñu baree baree bari sant yenn sant yi la sant ko seen ndeyay jekk seen ndey la xottataadu bu baax képp waaye dug wilaaya du deret du gën du man du xam-xam dara taadu waa jekk képp ñu may ko ministre wala ñu may ko député député bi wala sëñ bi xottaadi képp la xool dagg ni kii daal dama koy jël kooku mën nga caa am doom muy baax du ngeen ba li ngeen di wax na sun maam mi daan mayente jabar xam nañ ko nan ca dellu waaye am na ñoo xam ne tey billaahi wallaahi seen ndey bu yoroon wenn jaal wooy ŋàpp ki sant wi duñ ko am duñ ci am doon am sant wi waaye ku jar sàkka leela wa xottaa du dëgër jongama loolu képp la boole ci sant wi moo tax boo ma font duma la ba nga di ma fontoo man doo yëg ci sama kaw lii dañ ko parce que jaaxle ñëpp a sonn fukki xale ak benn dem dama ne ëpp na te liñ bëgg nag àggun ci treize parce que le chiffre treize c'est maçonnique le chiffre treize dafa baaxul foofu ñu ko yemale ci onze ñoom xam ne la ñu def ko dama ne l'église satanique mu ngi ci biir Sénégal le Sénégal est possédé par Satan le Sénégal est possédé par Satan amul fooy teg sa tànk rek mu doo mu sécurité amul lu méttee ngi nii lu tiisa ngi nii loo xam ne sëñ Tuubaa bëggeewu ko woon nii Alaaji Maalik bëggeewu ko woon nii sëñ Bou Kounta bëggeewu ko woon nii ñoom Mouhamad Lamine Dramé moom lañ xeex ba génn àdduna la doon ko de xeex ko ba génn àdduna jéeri joor njooy la anamu ma nga des kàddu mbol yaama ah Souleymane Baal taxaw xeex ko gis ngeen Cheikh Omar taxaw xeex ko ba nëgëni ba nëgëni nun sët yi nu ànd ak génération bu mujj bii jël Sénégal tasaare ko yàq ko ba réew mi yàqu kenn mënu fii dund fi ne tey boo gaaree benn avion boo gaaree avion ci buntu jumaa ju la neex ne ku bëgg dem yéegal ku bëgg dem yégal bu lax foo jëm ñey jëkk yéeg ca avion ba mooy doomi imaam yi ñoom dañuy am place ba noppi keneen door am place ku te ku mën a lang danga lang boyom nga daanu dee waaye danga génn am réew bu tolloo foofu nga xam ne musiba am na ñëpp a ngi daw takk takk li ñëpp a ngi daw di génn sawara si ñëpp a ngi daw di génn ngelaw li wupp nit ñi dee kenn xamul lu leen di rey ana diw ñu ne faatu na dégg kenn mënut a fee xale yaa ngi dee benn ah, ay kilifa te xërëm ah, di reen di nag ah, di suul di jël nag. di tëmbal ci géej gi di suul ku deewul lépp pour yi xërëm di wëri puune yoo rend ah am na ñu jur doom sax joxe ko sacrifice ñu jur doom ba sarxe ko waaw am na ñoo xam ne sax dañuy dem ba mënuñu am doom ñu defee dañ leen koo sant fekk yàlla mooy seet li ko neex mu def ko ci njabar dañ dëkk ñu di leen tëdde sa jëkkër moo ma def lii sa jëkkër ndax mënoo kii il faut nga ñu bokk maa benn lal bu ko defee bu ëllëgee bu tëddeeg rek moom bu ëllëgee bu tëddeeg yow nga daal di am doom bu jigéen ñu bari jabar yaa ngi leen di fanaanoo tëdde defe ne seen jëkkër am dara fekk yàllaa ko dogal ñun gëmatuñ yàlla xamuñu yonent bi xamuñu dara tey alxuraan alxuraan kañ la dugg ci ne loxo te ndox mun naan mënuñu koo am xoola kër diine yi li gën a yomb ci découverte découverte bi gën a yomb bi gën a yomb xam nga man la bi gën a yomb mooy trouver am ndox alxuraan am na junni at ci nun te dem ci kër kilifa yi diine yi amuñu ndox mu naan am ndox rek mënuñu ko ci régler seen maam képp lañuy ñuy jàngal ak wax loo xam ne si bu dul am jox leen ko waaw ñu doon jàmm dama wax naa leen ko keroog ni leen Sénégal képp laa gis ñu tifli ni tifli xaax tëf mu diwoo Amérique boo fa tiflee nit dootoo ko def France koo tiflee nit dootoo ko def nga dem Cuba tiflee fa nit dootoo ko def ba ci réewi yi Sénégal képp ngay toroxlu fële su ngi dàll yi di raam ci suuf comme mbaam ak ñu ne xaax ne ko tëf ci jë nga xaw ko waraasu ndox mu raxasu dañ koy naan Sénégal lépp ngir ak weddi yàlla nit raxasu ba noppi nga naan ko Sénégal laa ko gis. te amul lenn lu ci alxuraan tudd wala lenn lu ci nduróo loo xam ne si lu dagan dama ne nun ay mbaamanu gën weddi yàlla lañ def weddi yàlla dañ jël weddi ko completement te looloo am waaw te chiffre yi wane na ko ah, cinq pour cent de chrétien ah te du dépp du chrétien ay ay animiste ngi ci quatre-vingt-quinze pour cent musulman tubaab bi ne majorité bi moo war war a doxal nu nuy majorité ah, bisu feet sax dañu ko tànn bisu àjjuma ñi mënuñ koo julli ah damay yàlla dañu seetaan yàlla defaguñ dara man de maa ngi ñaan yàlla ne ko na na xiiral ba mu gën a dang parce que baaxoonu jundi at ñu yor ko alxuraan toog ba bisu tey bii deux mille vingt de deux mille vingt de ci lañu door a xam ne góor jigéen baaxut waaw ci la door a xam ne ak bokkaale baaxut ah man daal maa ngi jéggulu li ma wax lépp euh, metti na ma doonu lu ma bëgg wax sax waaye parfois de mel ne dafa am lu wax loo ne danga ko wax ndax lu naqarib Sénégal war maa naqari ndax Sénégal laa comme yéen waaye tiis yi din dal tiis yi ak naqar yi din dal liñ koy yóbbee dara wumpunu ci dara wumpunu ci rivalité ci biir kër yi liggéeyante sa doomu baay gas suul sa goro di gas di suul nu fàtte yàlla sa jabar di gas di suul sa jëkkër di gas di suul nu fàtte yàlla jàpp doomi jàmbur def ko ab sarax mu metti lool dama yu bon ci réew mi ñépp ko xam ñépp ko xam am na kilifa yoo xam fi toog fi toog ak fi ñu di toog boo waxee aw nag lañ fa suul wala ñu suul fa gàtt wala ñu suul fa puune pour lan pour yi àdduna pour lan pour xew-xewi àdduna ay kenn dellu ci yàlla ay waay kenn dellu ci yàlla bu ngeen bëggee mucc lii du lu Ousmane Sonko mën a liggéenti lii ñun ñëpp noo war a toog liggéenti ko c'est un problème commun un problème boo xam ne dafa laaj xeex dëgg dafa laaj ay ñaan dafa laaj delluwaat ci diine dafa laaj delluwaat ci sa citoyenneté dafa laaj du patriotisme pour ñu mën a mucc ci lii xool leen Bamba Fall ñoom xool politiciens yi. tey nga tagg Ousmane Sonko ëllëg nga saago ko xool leen politiciens di fen away ah xool leen Souleymane Ndéné Ndiaye lim fi waxoon ah away ah xool Farba Senghor ki Farba Ngom away ah xool sàcc yi xool leen Idrissa Seck away Karim Wade alal li réew mi la yóbbu ak parpar loo tax away xool leen Ablaye Wade franc woon ba léegi ni franc la waxul dëgg franc la woon ana ku la dellu si lislaam gen jàkk nga tuubaate dellu si gen jàkk nga dellu si ah c'est un franc-maçon moom dañ koo dàq franc dañ koo dàq moo tax xeex yi am Afrique ak coow yi am Afrique daanu yónni ku waaye kenn du ko yónni moom Nations Unies xool leen Mandela fu la ko yónni fu ne Nations Unies yabal na fa Mandela Ablaye Wade ëpp xam-xam Mandela ëpp ko ay Ah, di nekk ci Sénégal gu jege gi ah coowul Mali lii képp doo dig Nations Unies yabal ko fa parce que c'est un franc bu abandonné ay galoom la nangu bokkatul mbir mi loolu rek il faut muy combine nag di ànd ak Macky di toj boppi politiciens yi ndaw yi ñàkk xorom yi man waa dëmbalul ci man dara Cheikh Anta Diop ba ma ko jàngal ba ma mokkal ko waaw warante yii warante yii fu réew mi dugg fu réew mi soobu ñooma du kenn du kenn li Macky Sall wax keroog Ablaye Wade mi demoo kan ko jëli dañ ko délogé tey mu taxaw bëgg a occuper bi Ousmane Sonko ne nañ ko délogé ñu naan nañ ko jàpp yéen a bon yéeféere ñu gën yéeféere waaye mbugal mi day door de day door de am na càll luy ñëw ak ngelaw luy dikk dama ne sawara si ak seegul de billaahi daanu daanu xam ne golo ci ndigil lañ ko yeew seen bokkaal yi toroxal na réew mi te torox nañ ba noppi te décision bi yàlla jël àggale rek yàlla lu mu tàmbali dana ko àggale te dañ door a gis waaw kon maa ngi jéggalu te ñaan jàmm yàlla nañ buur yàlla dellu si ci lislaam lislaam ji nga xam ne satan da koo nangu maanaam l'église satanik moo en emprisonné l'islam sénégalais fii ne sénégalais yi xamuñu fu jëm yàlla moom jaamootuñ ko jaamootuñ ko ndax ci beneen borom lañ nekk te mënoo am beneen borom bëgg a doonu jullit waaw ab yé ay yéeféer ñu tale waaw tant que tuubuñu tuubuñu mbugalum yàlla mii mbugalum yàlla mii mënuñu koo tax a dëpp kon maa ngi jéggalu oh, man la Ousmane Dramé bu la réveil des consciences awaay yan yàlla wallu te suturaal nu awaay yàlla ñu ngi lay ñaan nga dellu suñu ci lislaam ban mën a tuub tuub sukkaat fi suuf tàmbaliwaat à zéro pour doon jullit yu wér asalaamaaleykum